na mu ngi nuyu rakkam yi ak taaliba yëpp ne taxawaay bi yàgg na waaye ñu ngi lay seedeel ne jëmm sa doom la yow yaa fi Cheikh Tidiane Niass yaa fi El Hadj Abdoulaye yaa fi Ahmad Dam yaa fi uutu taaliba ci àddina bi yëpp na am na ngarmande baayam ak na soxnaam ak njabotam gi yeb geureum nañ ko ci ite bu mu tiyé won te lépp lu ñuy wax yow mi yañu ko gëna xam na ñu ngi gërëm imaam ñu ngi gërëm talibay fi teew yëpp الدومي بايب التالي بايب نكادو جدال لبقيت صلاه بقي بوبكر يسنا الحمد لله السلام عليكم نانيو جيكالو تي يي ني يكاتي تي كانامي بي ne du teggin sëriñ bi teew ñuy wax ci seen kanam waaye nag ci ndigalam la ñuy waxee nañu ngi sant yàlla bu baax ci ndogalam alhamdulilah di gërëm it ay xatteem di wax inna lillahi wa inna ilay rajoon di ñaan yàlla yal nañu yàlla yool ci suñ musiba yaa rabbi yal nañu yàlla wuutalal lu gën li ñu ñakk ne seen rakk ju baax ji ñuy tàggoot ne maax ci moom gannaaw bi mu gane see àddina ñu jox ko tuur biñ ko war a jox tuddee ko bay Ousmane Fatimi mu jot a dal jàng ñu dalal ko jàng mu jot a sàkku xam-xam dem sàkku ji xam-xam sàkku na xam-xam ca Mauritanie sàkku na ko ca Xaahira am na ci it ay diplôme yu mag Si la judo way Nigeria la yaro ci goro sëriñ biñ doon wax. gorom bu ñu doon wax ubaawaru foofu la gorom doon wax la nekkon gannaaw bi jangam moté mu ñew fi Madina. kep ku ko xam xam na ko ci liggey kep ku ko xam xam na ko ci liggey mu ngi góorgóorlu di liggéey di daan doole. fii nga xam ne am na tànk ñu ko ba armeel yii ñu ko nar yóbbu tey. nga xam ne bàyyi fi na képp ku ñu fa def. nga xam ne bàyyi fi daaw na képp ku ñu fa def. yeesal bii ñu ko yeesal moom mooy ci ci loxoom la jaar. yeesal bii ñu yeesal armeel yi moom ci loxoom la loolu yëpp di wane ak góorgóorloom ak liggéey bi nga xam ne moom la bëggoon ci xolam dëgg-dëgg damb-damb bu mag la ca Nigeria ci fii ci senegal ba tax na ñu leen koy jaale yéen ñëpp di gërëm it mbokk yi nga xam ne ñoo bokk taxaw ko ak ñun mbokk yi nga xam ne ñoo bokk taxawu ko ak ñun fële ci Nigeria ak fii bañ ñëwee ci Sénégal fële te Nigeria ak fii ba ñëwee ci Sénégal cercle bi kenn desut ñoom ñëpp ñëw nañ taxaw seen taxawaay cercle bi kenn desut ñoom ñëpp ñëw nañ taxaw seen taxawaay ñi nga xam ne ñoo nekk Nigeria yi ñëpp taxaw nañ ci ndigali sëriñ bi def li nga xam ne moom la sëriñ bi santaane ba mu fii ci Sénégal ñi nga xam ne ñoo nekk Nigeria ñoom ñëpp taxaw nañ ci ndigali sëriñ bi def li nga xam ne loolu la sëriñ bi santaane ba ñu agsi fii ci Sénégal kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci turu sëriñ bi bu ñu waxutoon waxal ci ndigalam kon danañ doyloo waxi Baay Cheikh ndax moom mooy kilifaam bu xasee wax famille bi yëpp wax na amatuñ fi benn kàddu waaye ñu ko koy jaale ñëpp di sant di gërëm nit ku taxaw woon yaayam la xarit yi yaayam la woon yaayam daf koo bëggoon mu bëggoon yaayam te ni mu bëggee woon yaayam noonu la bëggee woon yaayam ya ca kër ga yëpp lépp lu muy defal yaayam rek mu koy defal yeneen yaayam ya ca doon defal yaayam mu ko doon defal yeneen yaayam ya ca des am na yar ci seen diggante am na teggin am na yërmaane ci ñoom kon ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm te xarfel ko àjjana te dëkkale ko baayam Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu jéggal ko ay rëcc rëccam ay mbaaxam yàlla fulal ko ko loolu yàlla mën na ko yal ko yàlla def yaa sëriñ bi Boubacar ne sa kàddu moo gën a mat boo jëlee nga gërëmal ko waa Nigeria yi ak ñi leen taxawu ne seedeel ko gaañu kenn rek doy na ci waaye ñaari tam dafay yokk darajaam bu Baay Cheikh waxee waxam yëpp matale na doy na doy na waaye dañoo bëgg darajaam ëpp dañoo bëgg mu am darajaay ba mu génnee àddina ay mbokkam yëpp wax nañ ne ku baax la sëriñ bi ne loolu moo tax mu wax buuba ne na wax waaye waxi baay rek doyoon na seen ñaari wax yëpp li ci génne mooy seen ñaari wax yëpp li ci génne mooy lan. ñu ngi tàggoog doomi Medina tey. doomi ñii. doomi doomi ñii. bàyyi ñii. bàyyi ñii. sëti ñii. sëti ñii. rakk ñii. rakk ñii. kooku rek mooy dem tey. kenn mënut koo génne. fenn ci Medina ci deret ak lu nekk rek. ci deret ak lu nekk rek. kii di dem tey fu mu jógee. kii di dem tey fu mu jógee. kii di dem tey fu mu jógee. mu ngi jógee ci Cheikh Ahmad Tidiane. mu ngi jógee ci Cheikh Ahmad Tidiane. ci doomi baay yu mag yi la. ci doomi baay yu mag yi la. ci doomi baay yi am itte la. ci doomi baay yi am taxawaay. ci doomi baay yi am taxawaay. taxawaay boo xam ne. taxawaay boo xam ne. kukam Cheikh Tidiane. rafetlu nga taxawaayam boobu. rafetlu nga taxawayam bobu taxawaay bu rafet boobu. rafetlu nga taxaway bu rafet bobu taxaway bu rafet bobu taxaway bu rafet bobu ci la yar ay doomam yépp. ba ñun ñepp a koy roy. ñom ñepp a koy roy. ñom ñepp a koy roy. ngir am ngir am. ngir am. ngërmandeem d'abord. ngërmandeem d'abord. ak ngir am itam. ak ngir am itam. place bi nga xam ne. place bi nga xam ne. moom la ñu a am ci seen biiri ay bokk. moom la ñu war a am ci seen biiri ay bokk. place boobu. place boobu. yar moo koy maye. yar moo koy maye. place boobu. place boobu. mbaax maye. boobu. place boobu. samay baay samay maam. samay baay samay maam. li ma doon li ma doon ci ñoom. moom lay fonk. moom lay fonk. moom lay dundal. moom lay dundal. ci laa war a nekk. ci la war a nekk. xale bii tey ñuy tàggoot. xale bii tey ñuy ci ñuy yaroo ci ñuy yaroo loolu ci ñuy yaroo jikko jooju la. loolu Cheikh doon jàngale. loolu Cheikh doon jàngale. xale bii ñuy tàggoot bii ñuy tàggoot tey. ci la ci la màggee. ci la xamee li muy xam. ci la xamee li muy xam. ci lay xamee jokkulante ci lay xamee jëriñ ngir yàlla ngir yàlla jëriñu ngir yàlla jëriñu ngir yàlla loolu yëpp foofu ci école boobu la ko jàngee loolu ci école boobu la ko jàngee école boobu kenn mënu koo dindi ci école Cheikh Ibrahim école boobu kenn mënut koo dindi ci école Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ndax jikko ya fa nekk rek ndax jikko ya fa nekk rek mooy jikko nga xam ne ne Cheikh jàngal na ko. jàngale na ko. jàngale na ko. bon nag. bon nag. fekkee tey tey jii. ñu ngi ngi tàggoo koo xam ne. ñu tàggoo koo xam ne. ca booba la bàyyee ngi tàggoo kon ñu ngi tàggoo ku diis ci ñun tàggoo. ku diis ci ñun. ku diis ci ñun. tàggoog moom. tàggoog waaye. ay jaami yàlla rek la. ndogali yàlla rek ay dox ci suñu kaw. ndogali yàlla rek mooy dox ci suñu kaw. nammi nammi yàlla rek mooy dox ci kaw. nammi nammi yàlla rek mooy dox ci suñu kaw. yàlla mu ne bu la neexee nga gërëm. yàlla mu ne bu la neexee nga gërëm. bu méttee ci yow. bu méttee ci yow jaam bi. nga ne ñun ay jaam rek lañ. nangu nañu gërëm nañ suñu borom def. nangu nañu gërëm nañ li suñu borom def. dégg nañu ko ci waxi baay dégg nañu ko sànq ci waxi buuba dégg nañ ko itam ci mbooloo mi yëpp daje nañ ko itam ci mbooloo mi yëpp daje fii mu ngi dem mbooloo maa ngi nii ñëw nañu di gunge di gunge seen rak seen rak seen doom seen doom seen jarbaat seen jarbaat seen lu nekk. seen lu nekk. gunge bi métti na ci seen xol. waaye nangu nañ àtte yàlla te gërëm nañ koy it. yal na yàlla bindal yiw ak yow yaara bi. ne xale bii ñuy tàggoo tey xale bu sawar la woon. ci lépp loo xam ne ku sawar la woon ci lépp loo xam ne dafay wane ngóoraam. gàmmu jotee. bu gàmmu jotee. diggante turbine ba. ma nga ca turbine ba. mu nga ca turbine ba. di xutba. di xutba. di jàng ay xasaayidam yoo xam ne moo ko way. di jàng ay as ay xasaayidam yoo xam ne moo ko way. di feeñuwaay feeñuwaay bu gën kawe rek. feeñuwaay bu gën a kawe rek. nga koy gis. nga koy gis. ànd ak yar. ànd ak yar. buñ génnee foofu. buñ génnee foofu. jumaa ji xam nañ ko. naka noonu. jumaa ji xam nañu ko. jumaa ji fii xam nañ ko. jumaa ji fii xam nañ ko. jumaa jëm mujjee jëm mujjee ca Nigeria. jumaa jëm mujjee ca Nigeria. xam nañ ko. xam nañu ko. xam nañ ku sawar xam nañ ne ku sawar la. lim bëgg bëgg diineem sonn ci. lim bëgg bëgg diineem sonn ci. xam nañ ne diine jooju daf ko jàngal. xam nañ ne diine jooju daf koo jàngal. na ko ñaqal jëriñu. na jëriñu moo tax lu nekk mu ngi ci mu ngi jënd mu ngi jaay mu ngi duggalante di génnlante loolu yëpp ngir samp ne ci boppam ne man góor laa yàlla laa yaakaar man ne yàlla samay loxoo loo ci teg rek nangu naa. kon góor la ci côté boobu. kon góor la ci côté boobu. góor la góor la itam. ci jokkalanteem ak bokk yi. ci jokkalanteem ak bokk yi. kum wéetal rek. kum wéetal foog ne yow rek lay sa doom yow da foog ne yow rek lay sa wala da foog ne yow rekk lay sa ndax. li muy jëfee ndax li muy jëflante yëpp. ak jaami yàlla yëpp. ak ci biir mbokk gi tam. ci biir mbokk gi tam. baax na. doomi nit baax la. wane na na ko. ci jëfam. ci jëfam. na ko ci jikkoom. wone na ko itam ci am amam nit ku mel noonu la ñuy sàkku bu ñu ko yàlla mayee bu ñu ko yàlla mayee bu ñu fàtte mukk ne gi yàlla la waxtu wu ko yàlla bëggee jël rek moo jël li mu moom na àddina dëkk bu sori dëkkam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam jullit fa muy deexee te du dëkkam te du dëkkam lu dëkkam sori sori lu dëkkam sori sori bu ñu ko suulee noonu la bàmmeelam di yaatoo bàmmeelam dana yaatu ba àgg Nigeria ngëneel la ci ngëneel yi yàlla yi may ay jaamam yàlla nag mooy maye lu ko neex boole na ko ci kuréel gi may loolu yal na ko yàlla jéggal ay rëcc rëccam yal na ko yàlla xare aljana yal na ko yàlla boole mu bokk ca buur yi ca foofa mu jëm yal na ko yàlla may sax mu bokk ca ñay ca ñay séddale foofa lu la yàlla may fii ci àddina moom la la may rek fële ca àllaaxira boo ko xeloo sàmm ko fii ci àddina bi yàlla may na ko ci àddina doomi Cheikh Ahmad Tidiane doomi Cheikh Ibrahim sëti Alaaji Abdoulaye radiyallahu anhu doomi Asuli sëtu Cheikh Omar Taal dare gënta kawe loolu may na ko ko yàlla du maye mukk di nangooti Terangam fii ci àddina teraangaam fii ci àddina jëm yal na ko gën a kawe jëmu jëm yal na ko gën sëriñ bi ne ñun ñëpp fii lañ jëm yal na yéex buy agsi yal nañu yàlla may mu gën ci suñuy bés buy agsi yal nañu may mu gën ci suñuy bés ci suñ digganteeg yàlla ci suñ digganteeg jaami yàlla yi yal nañu yàlla teral yaa rabbi mujj gu rafet mujj gu rafet mujj gu yëkkateku mujj jaamu yàlla yooyu nga xam ne mujj jaamu yàlla yooyu nga xam ne amuñu kenn ku dut yàlla xamuñ kenn ku dut yàlla tàllaluñ kenn ku dul yàlla. tàllaluñ ku dul yàlla. ci kenn ku dul yàlla. kenn ku dul yàlla. ku jëm ci yàlla àgg nga. jëm ci yàlla àgg kon fooy dem. kon fooy dem. yàlla nangul. yal nañu yàlla barkeel. yéen mbokk yi yëpp. ngi leen di gërëm. sëriñ bi na mu ngi leen di gërëm. ci yi ngeen ci tànk yi ngeen ñëwee fii yal na nekk ay yiw ñaal leen tànk yi ngeen di delloo fa ngeen bàyyee ko yal na nekk ay yiw ñaal leen yàllaa ñu ko dig yàlla digam du dindee ko xam ngeen sëriñ bi ne ñu ngi jaale suñ bopp di jaale mbokk yépp ci doom ji ñuy tàggoot tey. ak noonu ngeen ko xamee. noonu ngeen ko xamee. noonu ngeen ko xamee. doomi ñii la bàyyi ñii la rakk ñii la jarbaati. doomi ñii la bàyyi ñii la rakk ñii la jarbaati ñii la magi ñii la noonu ngeen ko xamee. kon loolu rek la. salaamaaleykum wa rahmatullah. ku ko mën a ko dama ko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 bi nee na ku mu yoreel koor na dem ci Baye Cheikh mu fay ko. parce que da doon yaxantu. moom itamit ku ko na nga yóbbu koor ba nga ko ameel ci Baye Cheikh fay ko.